dans quelques minutes l'arrivée du Golden Boy de la musique sénégalaise Wally Ballago sec. aka from Paramaribo Music mon ami de valeur nga de ak man en am fekk Par ma barke alxuraanu karim le Golden Boy de la musique sénégalaise ni nga de ak man de xam nga billet yi kenn ko joxe ci France bi barke alxuraanu karim yàlla na yàlla dafa jàmm Ni nga jamu. de dañ ko dégg wañina ko de li way ko da ko mën accompagner ko Merci beaucoup, mon frère Sidi Diabaté. Vraiment, je suis content. Sidi Diabaté, Diabaté Ba Music, des Music, F Music, c'est la famille, Faramaren Music, Diabaté Ba Music. Merci beaucoup. Fais doucement pour la bouffe, fais doucement. Ça fait longtemps. Ok, mon ami, ok. Et, à et à tout se passe bien. mais Kisma Diakité. est-ce que est se passe bien là-bas. mais Kisma Diakité. Gab mi ngi fi. mais Mr T ñoo nga foofu miin nag champs yi sa bërëb nga ne nii de cey góoru bi njógu mu ngi Dakar sama xarit mo très cher nguuda mi nag